fii piscine moom da yàlla suñu borom de moo mën lépp moom tàngaay moom seddaay moom léppam yaay booy yaa ngi toog waaw si loolu ne alhamdulilahi rabbil alamin tàngaay daal bi bëgg waaw tàng na lool piscine xamoo fa am piscine fii déggal sama yaay booy yaay looy doy piscine. ah dem sangu dugg ma ko jëm. loolu yëpp loolu la ci def fexe sax xol leen di. du ma ko seetaan nag. ah man de. piscine ah moom piscine ma ko seetaan nag. dëgg yàlla nga fay dem. dara dem rek toog boo demee toog dégg sa tenk yu teg say fruits say bagages. yaay booy yooyu yëpp mën naa am ci kër gi. waaw ah. kay waay yow daal toogal lépp dina la ci fekk incha allah. yàlla baax na tàng na mais nag euh, yaay. xam nga lu ma bëgg nga xam ko Bachir man du ma sa xale bu ndaw du liir nga sa jeu game yi ngay def man nekkuma si je suis pas dans ça def li ngay def pare ñëw di jaay rek làmmiñ bu rëy yaa ngi may dégg naa ma ay da nga capricieuse dugg na fi génn fee li nga xoolal xam nga lan laa yow caga nga wëyu nga taxawaal merde laa wax taxawaalu kat nga ma ni merde laa Bachir Europe taxawaalu nga fi nekkee caga nga bëgg jigéen moo la bàyyi foofu bu dul woon ba tey ñoo ngoo Sénégal set sa ndey ak man mii bu dee ñor naa xaw ma ko yow yaa am problème fii bu amee kenn du ko am moom la xam nga lan laa lay xamal ma ne Bachiri yaa ma gën a réew laa la wax xam nga lan laa bëgg nga xam ko mooy man ak yow c'est fini pour de bon xam nga yàgg naa la wax bàyyi na nga ne fii di ñëw di boole sa yaay ba ñu jubawaat cette fois ci man ak yow basta te sama téléphone bi su ma coupé appel bi nii boo ma ma dinaa la bloqué bul ma woowati je plus voir ton message ni ton appel. Eh, yaay booy damay damay sant yàlla nag. alhamdulilah di ma la gisee ci kër gi. Mm-hmm. ndax damaa kontaan. Mm-hmm. tax ma kontaan mooy gëjoon naan ndox mu jàll. gëjoon naa lekk lekk gu neex. xanaa feebaroon. déet naqaru xol la. Hmm. ak ñu may perturbé sama bàjjan mayu ma jàmm sama ndijaay mayu ma jàmm. Hmm. ñu toog sama compteuru xol bi moo tax bi ma la gisee ci kër gi wax dëgg yàlla dama kontaan gën a sant yàlla bu baax a baax. Hmm. ndax bi mu yëgee ni yaa ngi fiy ñëw ci la buub ay dëbësam tàllal te it xam naa ni fii ak mu ngi lay dégg ne yaa ngi ci kër gi du fi mës a teg tànkam. xam na ma moo tax ma sant yàlla bu baax. Mhm. ma di ñaan nag benn semaine bi nga fi def ma bëgg nga dolli ma ci yeneen ñaari semaine yu dëgër këj ba ma gën a stable xam nu may def. suy rek laa lay ñaan yaay booy. man de tooñu ne man mi lañ tooñ te dañoo jëw nag waaye bu ko wiiri wiiri jaari ndaari. man sama sàllal ñu ko mbàgg duma wodd. dégg naa dégg. mamaay sama mënoon na ma fay fekk mënoon na ma fekk ci biir kër gi. kanamam gu gudd googu mun na ko bëywu tagalu su ma fekkoon dina xam ni ñëw naa sa yaay ñëw na moom nag day dof dof te dofut day wuyu wuyu te wuyu bàndiwu sadiwut loolu lépp maa ko gën a def su ma fekkoon dinaa ko dóor dóor yoo xamante ni loolu lépp waxuma ko dina ma fekk bu ma fi dégg dafa dañ kumpa xam naa dina fexe ba ñëw ci biir kër gi xalaatuma ko léegi nag man yoo xamul ma jaaxal sa jabar kenn gënu ko ku baax la waaye li ma jaaxati moom ba ma dikkee ci kër gi ba tey mosuma ko gis bu tëdd di togg mosta togg mosta fóot ko xëy suba tee gis ko mu boyee sa taal ànd wala wala wala mu fabeere loolu pour lan yaay booy loolu yëpp ay détails yu sew la yu ndaw la te soo gisee loolu nag dafa am lu ko waraloon waaw dem loolu yi mu ngi jàll moom incha allah li ci kanam rawuli bët bëgg naa daal wax jooju yaay yaay booy gas ba mu xóot suul ko. Ah, ah. si. luy bëri ma sa jabar di leen ragal qu'est-ce que yaa lu eh. da nga am euh, sa jabar da nga am ci moom complexe. yaay man sori naa ah, sa jabar war am ci moom benn un complexe ma sori naa ma ma. mënumaa takk sama jabar ba pare di ko complexé wala ci góor ñooñu. waaye loo gis rek dafa am lu ko waral. waaye li ko waral loo ko wax. dinaa lay expliquer après. xam nga lan laa bëggoon may ma ma génn ñëwaat dimbali ma. ci yokkalee ñaari semaine maa la amel bii mag. da daa mën naa fi 3 mois. cub jeex na mën naa fi 3 ba sa ba sa bàjjen mën naa fi 3 mois. yaay tàllal tàllal waaye waaye foo jëm naaj bi tàng na de. maa ngi ñëw damay génn daal boo fa gisee piscine rek man boo ma ko waxee am benn problème. ay la la la ay sama doom ji ndeysaan man man man bàjjenam bi ma bàyyi sa moom bàyyi sa moom la ma bàyyi sa moom moom ban ban ban problème la am ba dëkk di dëbb kër gi kanam gu tuuti googu nag kudd gu ñetti bokk man la yëpp bàyyi maa ngi ci kër gi ñetti weer laa def ci deux semaines la ñaan trois mois laa fi def loolu salaamaaleykum bàjjan na nga def ma la maa ngi fi yéen fi civilisation pour sañse la mooy civilisé xel mooy civilisé la civilisation augmente de valeur de l'homme il faut conscience tranquille da leen dégg yooyu yaa ngi dégg. sax fay naa la bul waxaat man sax nga ma di wax man bàyyi pourtant nuyu naa man maa ngi sa yaay laay waxal sa ndey laay waxal dégg ci tut na kër gi dama fay fekkul. waaw moom xam na ma bu baax bu dee woyu maa ko gën a def bu dee sadik maa ko gën a def bu defee maa ko gën a def lépp lu muy def rek sama loxo la jaar ay dun xaaf ak lépp laa ngi dégg ay jaasi ay ay couteau lañ sa dama koy sex di ko yëy te sama dara du lak dagg soo demee ngeen sa ndey bàjjan nee na daf laa soxla nga ñu wusi ko man yow bañ a xam nga ne yow ak sama yaay foo leen daje du neex du yomb yéen ñaar du man maa dem di ko wax yóbbante kenn naan kaa ñëwal wuyu yéen ñaar ndax yéen ñaar seen daje kenn yàkkamti ko. yàkkamti boobu nag nga wax moom laa yàkkamti. ndax xam tax yow kër gi ngay jaabante nii. dugg ci biir kër gi di génn su ngoon guddeeg bëccëg bàyyi ko. gis nga nday économiser sa énergie li nga wax de A à dugg sama nopp lan nga may waxaat. wax ji nag dara metti ma ci lu dul sama tur bi ci jàpp di ko ci yaar yaaree ak man ni ma mel ci dëkk bi loolu kese moo mel mu doon bu doon Bachir kese li jëntiwu ma ko li jëntiwu ma Bachir laa la wax mun na def lu ko neex dem dem fu ko neex je m'en fous de lui mais man na ma bàyyi na ma bàyyi sama tur bi na ko baax yow nag moom cousine am nga bu la neexee nga am sa parti prise loolu yéen ñaar la engagé mais man Bachir moom xamal ni désormais génn sama vie man Oly loolu na leer ma calmer pour lan ma calmer pour quelle dayee xoolal bu ma wax ma calmé ah bu laa la wax voilà. ñëwuma fi ñëw pour bokk ak yow naqar bi compatir. Ah. benn naqar wax ji dara naqar yu ma ko ci lu dul sama tur bi ñu ci tudd parce que Bachir baadoo la la ndax yow xam nga ne Bachir baadoo la la ndax ba bëgg jotee moom rek laa bëgg. gisuma kenn ànduma ak kenn kenn ñoruma ku du Bachir yow ñaata yoon laa la woon ay photo nit ay numéro ay borom daraja ñu mën a jënd Bachir jëndaale seen waa kër yéen ñëpp nag ñëpp ku ma ci woon wii tey nga ñëw ñaan ma eh ma ne déedéet bëgguma leen Bachir laa bëgg ah yëfu baadoolu bi la may fayee. bu takk ñaari jabar de deux femmes la non je suis une femme benn jabar lay takk mun na ci kër gi yéen bu fekkee da sa xel da nga koy dindi bu fekkee moo tax nga wàcc sa greffage def sa tug aj ko soo sa tubéy tubéy gi danga def say xef def sa crayon tool di mel ni tali te takkaay yu bari ngay ne koy waay ka doon way naan u ali kase ali kase yow da ngaa mënta si bopp nit bàjjen man yow su dee man maa tax ngay wax na sa xel daal sama yoon nekku seen diggante kantaan nag papa moom ngay wax man ak moom ñoo yarandoo ci kër gi petit ba grand man sama bët romb na papa hmm. bu dee man rek rek rek rek rek na sa xel dal boo tëddee nelaw la yow nag yaa mën a fen yow bëtu papa moo la jël yow non man moo la jël ndax yow dama papa jëlee ci biir kër yemu na ko fii fii yemu na fii fii fii nga naan papa bàjjal sama kii boo may jaay boo may jaay délinquant maa la gën a délinquant man dama délinquant sa ndey lay xaar sa yaay moom lay xaar boo demee nga ni ko bàjjal nee na nga ñëw wuy si ko ñëw naa te maa ngi ci kër gi li faax toog yéen ñaar foo leen dajo neex moo tax yóbbante bi du ma ko su dee nag sa sama diggante ak papa na sa xel daal nga xam ne man seexlu naa ko. waaw dama ragal nag mu jox ma la papa la gën a seexlu foofu. yow li ngay daw xam naa ko sa coowal ndey ngay daw ak man sa yaay xam na ma maa ngi koy xaar ba mu ñëw baatu ku waay yow. d'accord tey neex na tey neex na ba mën maa fayee lii waaye man xam naa ni may gérer sama problème. te yow amul lay wax amul ulis amul ala amul lay wax ba ma déglu la. waaw mais calme-toi ma chérie. ma calmé man man ma ma calmé wu ah? man ñëwuma fi parce que parce sama cousin la wala lu mu mënti doon. nga soo gisee sama toogaay bi nga xam ni gàcce laa fees dell am lu ma naqari torop et j'en suis sûre que ni ni ma amee lu ma metti noonu la yaayam amee lu ko metti Bachir tooñu la yow kese tooñ na ma tooñ yaayam tooñ ay mbokkam tooñ ñi mu bokkal milieu bi mais loo gis lu ne dafa am nuñ koy gérer de grâce calme-toi. Ndeye. fii lu ñuy gérer ak luy defaraat amu fi amu fi de. Bachir moom dafa am envie dund dundam comme ni ma ko sentiree na ma bàyyi man ma ma vivre sama dund comme ni ma ko sentiree loolu mooy problème bi te nag sama problème man lii sax nu fekk commencé je vais le gérer à ma ñeex te su ma la ko waxee yow nga gëm ma lenn rek moo ma ci metti mooy na dem ma dem loolu méttiwu mais sama iPhone 13 bi ma toj loolu na ma ko fay mayu ma ko ngir yàlla du nii yow de xaw ma ku ma xamul waaye yow xam nga ma yow xam nga ne man lu ma mat dagg du ma bàyyi noppalul nga tëj sa gémmiñ gi ngaa toog fi naa na ngay sinap da ci téléphone bi dëxa bi nga doon ndëqata yaa ñàkk jom yaa judd ci gileem yaa nàmp ci mbaam dinga def war nga koo def nga defee ne ndam nga ci am yow ñi ngi doxaanante doxaananteetuñu looy jël samay audio di ko partager di ko jox Mama yéen yàq deru nit boobu lan ngeen ci jublu ak ban ndam ngeen ci am après parce que biñ koy audio man ak yow dafa neexoon ñu koy waxante léegi doonatul man ak yow nga jël audio yooyu jox ko keneen pour yàq sama àdduna dama lay laaj ban résultat ngay am. pare yow laay déglu. maa tay parce que maa tey xuru gàcce la ku am gàcce danga fay jaar te boo jógee ci nga war a dugg nii. boo ñàkkee fay la boo gone ndaw ñëw. ci gone ko ndaw man yaa may dégg ñëw am la ba jël say ojo di ko partagé yow la yow ko nga jàppe sa bopp oh, man la dimbali ma may ma sama jàmm ngay mel ni aw sa nii yaa may dégg yow nga xam ne gis nga Yunus gis nga Ibou Sakho sa xalaat rek nga wax soor Mbaye xanaa yaa ma ko gisloo yow yow fi ñu ànd xanaa yow yaa ma ko gisloo dem ba appelin caacoo nga ah, taxaw fi daal xale bu ndaw yow mii yow kan nga mën a yóbbu appelin caacoo yow mag nga de yow dangaa baax le yow sa big bindul sa dara doxul. ma big bindul. sa dara bindul. yaa mën a suuf man ma bind fu ne man may écrivain. écrivain bind naa fu moo ma nga naan may lan. ma la bindal moo la. loolu bindal. yow moom xam nga lu lay arrangé. big baaxul yow sa big dekkal. baaxle woo xam nga lu lay arrangé. moo yow dëmbali ma man. xam nga lu lay arrangé jël encre bi sottil la ko. man loolu dara leeru ma ci Bachir mu ngi foofu ñun ñu ngi fii en tout cas daal vidéo yaa ngi circulé mais man dara leeru ma ci ah waaw man de maa ngi Sénégal toog tuumaal nit moom dafa gaaw dafa yomb mais man sama yoon nekkul ci loolu maa lay rappelé xaaral sama bàjjan dugg si na si biir. mën nga àggal li ngay wax de mën nga àggal def dëgg yàlla. mën na yàq sa dara maa ci loo nekk. maa ngi si jàmm bàjjan. waaw yow mooy dégg nag doom sa sa mag bàjjan ñoo ko déggandoo. co lañ ko nan lañ ko déggandoo ma ak yow da nga bokk sa sama ndey ak baay mu def li ni fàng ci digg dëkk bi vidéo yi di dem audio yi naaw waaye audio yi ni nga ko yëgee noonu laa ko yëgee di man loolu dara leeru ma ma ci yooyu ma ci yaat man am na juróom-ñaar xale bu mën a fen laa fi a ba te da nga mën a fen lan ngay nëbbatu man sa bàjjan laa maa ne ci biir kër gi ah yow sa wàllu bopp war nga gis dara lu naq sama nga woo ma ñëw ne ma bàjjan kaay wax ci lii defal lii defal lii moogal ko seen xarit yi boo waxee jox kii kii wax jël tël jaar ne kii tël jaar ne mu ne régime mel nag makka na keeg ñoom El Hadj du noonu. waaw bàyyi leen yow li nga wax da ah, man moo ma di la laaj. man la ci wala lu ci wax. dara leer ma lan laa lay dugal. yow mi toog fii di liggéey di fi mais man dama lay laaj bàjjen nee naa la xaw ma waa léegi xaw ma loolu loolu laa ma bu ma bu ma dugal man maa mos a dugal kenn ah yow nag xam nga la sa reywante gi ñuy wax yëpp maa ngi bëgg a gëm sa kanam gu gàtt gii sa reywante gi ñuy wax yëpp maa ngi ko bëgg a gëm waaw xam nga afitaa nga tudd xam nga noo tudd man suubi sax jëm ma koo xam ndax suubi gudd na gudd goo xamante ne man xamu xamoon nan la demee reyu nga ba dof man duma sama ram je ne suis pas yaa ngi dégg sama nga fi def lu nu weng Sénégal gépp di ko wërngal képp di ko di ko wax réseaux sociaux yaa ngi toj tàppeel tàppeel dugal ci dugal ci YouTube bi nga tàppe nu ma ne ko ma laa may te pare ma ah, première réew a ngi nii magom jëm def nga naa ko bàjjan may ma ma wax ma nga nee ci réseaux sociaux yi ñu koy TikTok di ko Instagram di ko ay kalaab lépp a ngi ci biir waaw gis naa lép ngay fen mënoo ko dëgg gi rek ngay fen waaw léegi bàjjen man su a toogoon jël sama life ne bàjjen xale bu ndaw ko ëmbal looy wax. Eh, ba ma ko waxte man ñepp sa waxaat waxaat ma ko léegi waxaat ma ko léegi ma rey sa ndey léegi waxaat ma ko set ba ko waxte ma toj sa co waxaat ma ko rek waa jaw. ñu ma ay sa morom boonam bàjjen ay ay ay xale yu ndaw moo ko ëmbal. te dégg naa xale bi ci koñ bi la dëkk. man xale may doxaan ci koñ bi la dëkk. ci la ëmbal yow yaa mën a duul. ana ëmb bi ana mu. Ah. ana ana ana enceinte bi ana wane ko ko rek. rey bay bëgg a dee imbécile man dama sam morom dama ne seen problème bi ngeen dem lijjanti ci ko yéen jeel ngeen jëm paquetage yéen ñëppay dem mais yow moom ay écrit nii arrangé la yaa ñàkk jom yaa bon judd ci gileem nàmp ci mbaam bu ñu waxee nga ne xujj di ma xool ak sa taat bu gàtt mooy mel ne xar mu ñu rendi <laughs> yow sa xol a war ngaa jël man samay audio dem jox ko ma femme tiim ma di wax lu ko saf yow ay ojo ngay jooy. yàq deru nit yàq àddunaam lan moo leen jaral loolu. maa tay. mais nag dëx nga. Hmm. xam naa li tax tàngaay bi da ngeen di énervé wu yéen dëx yi. mooy moo leen jàpp ngeen di jël ay ojo jàmbur. di ko hmm. di ko fiite ñu defeen da ngeen a bon mais tàngoor wi la seen xol yee xat ndëqate yi. maa tay ay ojo ngay jooy say vidéo ngi ci sama téléphone. Hmm? boo naan pipe ma koy partagé. pipe partagé. ah pipe. yàq lii. man damaa faale yooyu sax jom. man foo ma partagé yaa ngi ci biir. ñàkk jom bay bëgg a dee. vidéo boo am ci man. yaa ngi ci biir nga nëbb ko nag moo fi ne ak nga wane ko. léegi pare il faut nag nga jóg ñibbi. jóg. waaw yow yaa may yëkkati yow. man du ma la yëkkati man du ma la yëkkati. juguma. mais ngay jóg xam nga lu tax mooy dëkkoo fi. juguma. kër jàmbur boo fa ñëwee ba ñu dàq la da war a dem ñibbi. eh juguma. moo ñaaw de. kii. yaa ñaaw. ak say xef mel ni laa fi avion jógal. juguma. da ngay fanaan. bousez wu ma yotaa. da ngay fanaan. fanaan. nooy def da seey fii. ma ne la nga avancé. déet man kay sunu kër laa ne yow laay laaj noo bëgg a. yaa ma fi fekk. ci kër gi maa la fekk. waaw ma fekk fi ma toog. yaa ngi nii bàjjen yaa ngi nii énervé dama doon sosal rek gis nga ci sos ni mu méttee imagineel nag yow mi nga xamante ne dama laax lu ndaw nga tàq ba jëppet imagineel ki nga xamante ne mi ngi nekk ba foofu bàyyi leen di tuumaal sa xef yi. sa xef ndey sa xef yi ndey ne sa ndey bàyyi leen say xef waxal ma ko loolu imbécile ma nga doon roye bay bëgg dee wax na dëgg de pourtant xale yi dañuy wax dëgg de inside tuuma baaxul ndax ma li ma wax lii dara leeru ma ci maa ngi wax naa ko sama jëli sama gela te gisuma audio gisuma vidéo bis ma gisee sama sama sama bët yi tuuru man a dama mën a fen man